tey fii mooy suñu robinet yi depuis 6 mois ngi nii yoo xam ne xeliwut dañoo manqué ndox trop ndox amuñu ndoxu naan amuñu ndoxu ku xam ndox xam ne dëkku roose la robinet yi amuñ amatuñu teen bu benn teen kii wu fi amu fi ndox roose bi dër yi yéene ko gisal seen bopp dër yëpp dëy na xale yu góor nga xam ne nii kenn xamul ñaata la ñoom ñëpp dem nañu fi mu toll nii ñi fi nekkoon ñëpp ndokk dëkk bu siiw boo xam ne nii nit ñi dañ daan jógee feneen daan fi ñëw depuis depuis lu mat 10 ans ngi yoo xam ne nii léegi nit ñi ay surga sax lañ mujj doon waaw ñun daal li ñu ñaan nguur gi mooy ñu defal ñu dimbale ñu ngir yàlla defal ñu forage ndax ñun forage moo ñu moo ñu am moom lañ bëgg ndax muy ñëw wéeru ci benn dëkk ndax ndokk dëkk bu mag la dëkk ba xumb la benn benn dëkk attanuñ waaw tiwo yi ndox yi amoon mooy tiwo yi dëkk yi ñu wër te am forage fa lañ jëlee woon ay ay ay tiwo indi ko fii te dëkk yooyu sax amatuñ ndox ndax Touba amatul ndox waaw benn tiwo xeeli wu fi benn robinet boo xam ne mi ngi xeeli ndokk rek amul damaa jëlee nag toolu sardin yi sardin moom amatu fi yoon wi tamit bëgg nañ ku ñu ko defaral ndax diggante Touba ak ndokk carrière bi ak jumaa ji 9 kilomètres la ko wax Touba wax ndokk ndax ndokk carrière bi ak jumaa bi ñu defar jumaa Touba bi ndokk la jógee li gën a fort ci yoon murit muy muy jumaay Touba ndokk gi la jógee te daanaka dañ ñoo fàtte waaw ndokk moom dañ koo fàtte moom bëri na dëkk yoo xam ne ñu ngi leen di tudd di tudd yoonu murit yoo xam ne nii li ndokk defal defal yoonu murit ñoom defaluñ ko defaluñ defaluñ leen ko te dañ ñoo fàtte moom wax dëgg yàlla dañ ñoo fàtte amuñu ndox amuñu yoon amuñu dara dara amuñu ko. Touba Touba ndox yi ndox yi taa ci mbedd yi ndox buñ manqué Touba ndox lañ koy tuur yàq na suñu toolu gerte yi yàq suñu toolu dugub yi yàq na suñu toolu sardin yi lépp yàqal nañu ko te ñëw nañ fi defi recensement daaw jéeg ak daaw benn dërëm boo xam ne yëkkat nañ ko jox ko waa ndokk ci wàllu wàllu wér-gu-yaram am nañ fi de santé boo xam ne nii ñoo sëñ bee góorgóorlu def ko fi ak su ak suñuy suñuy benn benn dërëm waaye nag état bi moom defal defal guñu dara moom waaw loolu it bëgg wax dëgg yàlla soxla nañ ku ñu ci dimbale ndax yaa ngi gis ñàkkkat yaa ngi ne ci mbedd ci bitti lañ toog loolu moo yaa ko gisal sa bopp waaw loolu soxla nañ ku ñu ci dimbale école bi tamit suñu xale yi dañu dañuy dox diggante fi ak Daaru Rahman di di jàngi ñii di ñii di fay ay taxi di dem Daaru Salaam di jàngi loolu dafa métti bañ sañoon ay ñu dafa ñu ay classe CM waaw luñ luñ soxla daal ñun liñ soxla daal bëri na. di wax nag ci ñi nga xam ne ñoo fi doon ñëw bi élection yi jotee muy Cheikh coro ak compagnie keroog biñ gañee élection yi ak tey dara dara dara yàggagut waaye ñi ngi leen di soññ ñu bañ a fàtte ndokk ndax keroog biñ wàññee biroom ndok bi ñetti téeméeri carte ak yu topp ci am waa APR amuñ fi lu juróom fukk ak nangam 200 cartes yëpp ñoom waa ñoom waa Pastef ñoo ko gañee ñoom la ko waa ndok woteel gone ànd ak ñoom di xeex guddi di xeex bëccëg benn mbir képp lañ am gone yaa ngi nii ak mag ñi demuñ fenn saa suñ naanee dañoo rootaani gis fi lu ne nag élection bu ne fekk ñu fi mun mun bu ñëwee nii ñu def nii ni la ñuy def méblu sow ñun ñëpp Cheikh Thioro suñu doom la suñu xarit la baayam di su suñu doom di suñu xarit di juddub dëkk bi ba mu ñëwee ñu jàppale ko na ngeen ñu ko jottali ne ko bu ñu fàtte donc wàllu root bi yéen jigéen ñi wàllu wàllu bi métti rek métti bu ñu jëlee dañuy dem Touba bala ñoo dem Touba 4 heures di matin la ñuy jóg dañuy root bay bëgg a dee bu 6 heures jotee ñu doog a aw yoon Touba dem jaay loolu la ñu def ñun ñu ngi roote ci daara ji di roote ci robinet yi di roote ji ba fu ne la ñuy rek la ñuy aw teen buñ defee na rek buñ ca demee mën a am ndox rek aw foofa duruy suñu paan ñëw yenu soo ko aw yoon Touba dagg suñ salaat soo ko aw yoon Touba ay jàmbaar rek lañ poste santé bii sëñ bi moo ko fi def benn nguur kay defalaguñu dara ñun dara lañ ñu defalagu sëñ bi suñu sëriñ moo baax courant beeg lépp suñu sëriñ a baax indi ko feeg suñu robinet sëñ Cheikh Mbacke yal naa yeexam sedd moo ñu tax am lii ñuy kuy kuyal di root waaye benn état defalaguñu dara ah